na na nañ koy dolli bi di nu dolli nu ànd nga dem noo ngi bëgg nu bëgg bëgg nañu ànd ak yow waaye fasaale nu sëñ bi jàpp suñuy loxo te bu mu ko dëgër gi ñor di nu noonu la demee ma mënees la <laughs> mënees la <laughs> sëriñ bi nee na nañu xam ne sunu borom fawut faluwut sakku ñu ngir sàkkantu sakku ñu ngir fowantu afa xasibtumu annama xalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun déedéet danoo bind wàcce ñu àdduna digal nu tere nu wutal nu ab ab sàkk bés boo xam ne ci lay seet ana nun def ak lim nu digaloon ana nun def ak lim nu tere woon kon bul jort mukk ne fii di àdduna dañ fiy dund rekk di wéy kullu nafsin zaiqatul mawt dara saxu fi ku tedd ngay àdduna rekk nag ñor ba sunu borom jox la ko na nga xam di nga mas torox ku fi am di nga mas a ñàkk waxambaane woo fi gis dina mas a néew doole lu fiy dund lu ne dina mas a dee te wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut xamoo kañ la xamoo fan la xamoo loo fay fekk kon yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum sëriñ bi nee na ngeen ragal yàlla mi leen sàkk xaqa tuqaytihi te jaamu ko ndax moo mu sàkkunu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li jaamu gi nag sëriñ bi nee na ngeen jiital ci julli